salaamaaleykum waa Sénégal maa ñëwaat di waxtaan ak yéen mais cette fois-ci waxtaan la boo xam ne dina wuuteeg yi fi daan jaar euh, tey dañuy wax rek jëmale ko ci xale boobu doomu jàmbur boobu sëtu Sëriñ Fallu boobu nga xam ne depuis le 22 ñi ngi koy wër gisaguñ ko xale bu am ñetti at moom moominu yàlla xale boo xam ne li ma xamagum ci àddina bëriwul ñu ne tekk rek. man tekk gi moo ma jaaxal ndax nag tey yaay rek mooy wax yaay mooy wax waaye taalibe Sëriñ Tuuba mooy wax murid saadix mooy wax yàlla xam na ne xale bi xaw ma ay waajuram am naa ci intermédiaire rek koo xam ne moom it kilifa la Mbàkke la sant mu di ma ci jox ay nouvelles ndax boobaak léegi j'avoue que maa ngi ànd ak inquiétude boo xam ne jaaxal na ma man sama bopp dafa mel ne xale bi ci man la daggee dafa mel ne xale bi ci sama biir bii la tëdd ku jur yërëm ku jur yërëm ku jur yërëm te ku muy yow rek di yow ku muy yow rek di yow man de tey jii je mais à la place de la maman ndax dana nelawate sa doom ju góor surtout Sëriñ Fallu Mbakke ñu tuddee ko sëriñ Murtada Xaadim Rasul ah doomu jàmbur ji fu mu nekk nag nit a ko fa bàyyi xale bi fu mu nekk rek nit a ko fa bàyyi fu mu nekk rekk nit a ko fa teg ndax nag le 22 ba tey te àddina bi ñëpp a yor téléphone Facebook baa ngi fi ne gaañ grand place la boo xamul sax nooy defee photo Facebook. da dëkkaale ñoo xam ne nii dinañ la mën a fotool xale bi dugalal la ko Facebook ne xale bi dañ koo far ku gis ay waajuram wala ku ko xamee nag ñu euh, contactel ay waajuram waaye boobaak léegi ñu ne pat ak lii xew ci dëkk bii xaw ma ku dal xel de waaye man daluma xel ma ne murid yi laa bëgg ñu jóg taalibe sëriñ Tuubaa yi laa bëgg nag ñu jóg nag ñu def ko seen yëfi bopp ndax nag su fekkoon ne tey jii ci bitim réew la kon dootuñu teg dara ci àdduna lu doon xale bi disparition maanaam réeram waaye nag dangay ubbi chaîne Sénégal gis ci ay musique ak politique waaye nag xanaa sëñ na ma wax ak taalibe sëriñ Tuubaa ndax kenn ku ne tollu nga fi guddi yoo xam ne nekk nga ci lëndëm lëndëm lëndëm wala walla wala wala jaaxle nga nga wéet woo sëriñ Fallu Mbàkke mu wuyu la et man j'en fais moo tax nekkuma Sénégal waaye lu ma mën rek maa ngi ko ciy def wéet gore wéttali ko gore ku ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi jël sa bopp di ko kole ci turu Serigne Fallou Mbacké nañu nañu nañu nañu jóg nag ci mbiru xale bi ndax nag dañoo génn ci élection te gis ngeen Sénégal li fi xew dañuy jël ay xale yu tuuti di rey di faagaagal di defi sacrifice di def lu ne man de looloo tax nelawuma ndax bu dee réer rek di réer feeñ na bu yàgg waaye ki jot doomu jàmbur ji ndax xam ne na deretu sëriñ Fallu Mbàkke la yor ne delloo si doomu jàmbur ci bi muy neex ana Baay Faal yi jóg leen def leen ko seen bopp bay Faal yi nga xam ne seen digganteeg sëriñ Fallu Mbàkke nii la mel ndox la ak ak suukar ànd naan wala ànd tuur kon sëtu Serigne Fallou Mbacké bu ñu ko nee coppetee tey Baye Fall yëpp war nañoo jóg def porte à def leen ko seen mbiru bopp maa leen ko ñaan ngir jëmmi Serigne Touba ngir seen diggante ak Serigne Fallou Mbacké jóg leen ci doomi jàmbur ji dangay gis Facebook ñi ci dugal yu ñàkk fayda ay feccet ay challenge feccet ay yu ñàkk fayda sëtu Serigne Fallou Mbacké du lu ndaw man de bu ndawee ci yéen ndawul ci man man xale rek. xale rek dama ci am faiblesse waxatumaa nag fa ma yaakaar àddina ak alaxira muy kër Serigne Touba deretu Serigne tubaa dafa foor ci man bokk dafa foor kon may ñaan ñuy jóg wax dëgg neex yàlla nañu jaayante ak Serigne Fallou Mbacké ndegam dañ koo bëgg te muy dëgg ci ñun ndegam mës ñoo jaaxle benn yoon woo Serigne Fallou Mbacké mu ñëw taxawuñu ah kon sëtam bii buñ ko nee doñet jël tey day Sénégal waroon nañoo jóg lool def porte à porte di dugg ci kër yi di dugg fu ne àll beeg fu ne jóg xool chaîne télévision yi war nañoo arrêté yu bëri di jàllale photo xale bi euh, station rajo yi war nañoo arrêté lu bëri di jàllale photo xale bi mi ngi bëgg a yàgg mu ngi bëgg a yàgg xale bi fu muy tëdd xale bi lu muy lekk xale bi lu muy naan man de sama xol tooy na en tant que yaay man day lekkatuma naanatuma sama xol tooy na lool lool ñuy ñaar sëriñ Fàllu Mbàkke ndegam yaa ne woon sàmba mën na kanamam rawate na ginnaawam sëñ Fàllu sa doole yal na nga ko wone ci xale bi yal na nga nit sa sët bi mu feeñ musuma xam kuy way juróom wu góor musuma xam kuy way juróom wu jigéen xam naa ne daal xayra la dëkk sëriñ Murtada Mbàkke la tudd sëtu sëriñ Fàllu la diggante ko sëñ Modou sa Dieng ak Alaaji Baara Fàllilu lii daal laa ci xam comme information nee nañ coppet doomu jàmbur réew mi kenn doful su dee réer rek la xam nga ne feeñ na bu yàgg waaye nag li gën a tax ma def vidéo bii dafa am sama benn rak boo xam ne mi ngi dëkk Touba mënoon naa sax joxe turam daf ma bàyyil audio démb mu ne ma man de dama gént xale bi bi ma ko géntee mu feeñ may yuux di jooy naan xale bi feeñ na xale bi feeñ bi ñuy nee na ci gént gi mu naan xaaral ma daw wax ko saalixaate ndax sonn na ci nee na fi ñuy dawee ba may bëgg a woo nee na oto police gaare ne coppat xale bi yóbbuwaat ko moom def ko gént rekk bi ma ko waxee nag ma xam ne loxo saay saay a ngi ci biir moo tax ma ne naa jóg ay waay juróom nañu jóg nañu jóg xayre nañu jóg kër Sëriñ Fallou nañu jóg bu ma leen gën a bëgg xale bi jóg leen jóg leen faites des vidéos leen na taalibe Sëñ Tuubaa yi jóg murit dara masu koo jaaxal Baay Fall dara masu koo jaaxal lu sottiwul boobu dafa fekk Baay Fall yi jotuñu ci waaye bis bu tàbbee ci seen loxo mu sotti kon nag yal na ko yàlla nit ci barka turandoom yal na ko yàlla niit ci barke maamam yal na ko yàlla niit ci barke Sëriñ Bamba yal na ko yàlla nit ci barke Kitaabullah jërë ngeen jëf yaataleen leen vidéo bi partagé leen ko faites des vidéos euh, jël leen foto xale bi def leen ko ay profil Facebook jàpp leen ci li wajjilaahi karim bu dee kenn ku nekk daal mës ngaa jàq woo Sëñ Fàllu mu dimbale la taxawal ko ci sëtam bi jërë ngeen jëf